ñu ngi lay ziar. te la ma waral teewaay bi. fi war rek. Ah. waaw. boo gisee stade bi. waaw ah, mooy stade bi euh, may mu ngi jox Santiago Bernabéu ah Santiago Bernabéu la may jox de sama stade merengue yi. Ah. est-ce que bii taxul sax. organisation bi tey. non parce que organisation moom mënul feet waaw parce que bi ñu dugg ci mais dugg biir rek. la gërëm xawoon na ma yóbbu mais dara lacrymogène pourquoi. gars dañ ko sànni ci buntu bi. xam nga peut-être dañ ñu bëggoon pour gars yi xaw a kii rek mais organisation moom mënul parfait ah mënul mënul mënul mënul parce que te foot ay ay ay milliers de personnes. xam nga te ñëw ci stade fii tey kenn xamul lu mu tey euh, mënoo ko mënoo ko mënoo mënul parfait mais nag euh, bon ñu ngi euh, ñu ngi encouragé ñu ngi jaajëfal suñu serviteur bi les gens la gendarmerie. capitaine Mbengue colonel Mbengue franchement parler ak avec son équipe wax dëgg yàlla. xam nañ ni euh, dafa metti depuis dafa metti ay milliers de personnes ñëw nga war leen couvrir wala leen teg ci yoon bu metti te ku fi ñëw sa jikko nga fi indiwaale am ñoo xam dañ fi ñëw événement bi lañ fi am ñoo xam ne ku ne rek ak la tax a jóg mais malgré tout ça def nañ le maximum possible mais sànq moom lacrymogène bi ñu sànni ci buntu moom mën naa la waate ci yàlla mën naa rey gars yi dañ ci bàyyi xel parce que Sénégal ñu wérul bari na y a des am na ñoo xam ne ay asthmatiques lañ am ñoo xam ne seen dënn yi baaxul am ñoo xam ne dañoo gaaw a moo tax ful bu toll noonu waroo di balaa ngaa sànni pour disperser il faut que pas bien wóorul man man affaire yi xaw na ma escanté mais sant yàlla rek waaw